Yeah.

gën ko ñoñal parce que loolu la ñu xamee et comme je dis guinéens yi am na ñu bëri ñoo xam ne fii la ñu juddoo fii la ñu màggee fii la ñu nag daal ne woon daal waa euh, nga mooy Congo daal bi à Senghor vraiment ah, donc gis nañu Congo aussi ah, seen star yeeg seen bëreet yëpp ñu ngi si ginnaaw équipe bi ñëwoon nañ seetaan si nga mooy match bi mais aussi euh, wax ci li nga xam ne gars yi jëm ci. équipe nationale du Sénégal par rapport ak point bi def ci actualité bi actualité bo xam nak les concerne suñu joueurs yi ñu bari nak reprendre nañ li nga xam nak moy donc compétition bi dem nañ seen i euh, club pour daal di fay ki nga xam nak moy donc euh, Pape Alassane Ner Sène mun football le gauche Magic Gueye lañu ñuy tay mom mi nga xam nak nag gars yi actuellement donc dafa am problème ak ñi nga xam moy donc Marseille lan moy problème bi lepp ñu fas yéene ko détaillé ànd ci ak yéen leeral ko. laata boobu nak li nga xam nak nag gars yi la ñuy waxtaanee jëm ci liste bi nga xam ne mooy le Mamadou Diallo yóbbu ci coupe du monde de beach soccer bi ngeen gis nombre de joueurs yi mu yobou hein ah, donc ak nombre de gardiens yi milieu de terrain bi tout Sénégal bi xam nak moy première nation africaine euh, ci beach soccer ñoo ñu souhaité bonne chance mais aussi gars sénégal Sénégal dëkkum jàmm la ñun ñoko wax un peuple un but Hein, comme on dit une fois gëm-gëm bob lañ am Sénégal nekk déwum de de coupe ay gor coupe également de coupe li nga xam nak moy donc teranga Sénégal am ak yu bax hein. donc donc je pense que aujourd'hui au-delà même du sport ñun ñëpp ay doomi Sénégalais lañ fuñu ñu mënti bok xet bu ñu mënti bok ku judo Sénégal am ñu xam judo wuñ Sénégal mais seen wajur ay Sénégalais lañ kon nañu jital deug ndax Lamine bu waxut deug wax lenen wax safaan et que comme je le dis sport ak lepp mënul am ci deuk bu fekkee ne jàmm amul ci deuk et je l'ai toujours dit Tay Sénégal lañ

dëgg moom a ñor jëli leen seen i carte électeur ku leen wax lu dul euh, lii jëm ci élection yi nañ ci jëm ak jàmm ah donc dem ci le 25 février incha allah rabi yàlla tax sénégalais ku nekk nga bëgg a tànn nga tànn ko wax ñu leneen li ñu wax nag mooy que ne am na ñoo xam ne tey ñu ngi seen kër tëdd taal seen i clim yor seen i oto xamuñu li ñuy dund am na ñoo xam aussi ñu ngi ci clim taal seen oto mais démb am na fu ñu jaaroon fu metti ñi nekk ci tugal également tey ñoom ñu bëri ngeen gis leen di leen ñee li leen gën a naqari mooy la ñu am te fa nga xam ko indi seen dëkk def ko seen dëkk parce que Sénégal moo leen ñor ñuy jël gaal yi bu ñu sañoon du ñu gaal yi mais Sénégal moo leen ñor ak seen i waajur moo leen ñor tey ñooñu tey taxawaay bu ñu am ak ñi ñàkk seen bakkan ak ñoo ñëpp lan moo leen tax a jug lan moo leen tax a jug mooy jàmm Sénégal donc tey doomu aadama du toog ci këram toog ci bureau am wala toog ci climatiseur bëgg tey ne moom la ko neex mooy am la neexul Sénégal yi am tey nañu bàyyi Sénégalais yi ku nekk fa nga far nga daal di mën a joxe sa baat kam la neexee ku nekk bañ a ngañ a ngaañi kenn mais nañ ko teg ci yoonu dëgg ndax dëgg mooy njëkk dëgg mooy mujj bu ñu bëggee defar Sénégal nañ ko defar ci dëgg ñu dem nag également wax ci xam ne nag mooy donc suñu gaynde yi Idrissa Gana Gueye titulaire avec Everton match bi nag ko tey la ah donc tey la woon sax laay wax mi ngi daw ba léegi si jamono ñi def vidéo ni diggante Everton ak ñi nga donc ñii di Tottenham bu ñom Pap Matar Diaye Tar Boy Thiès mën football Idrissa Gana Gueye un des cadres de l'équipe nationale du Sénégal dellu si nek titulaire au niveau de d'Everton di wane également taxaway bi mu am dayo bi mu am mais également confiance bi nga xam ak performance yi nga mi ngi koy def ba tax na ci club bu melni Everton mu daal di fay nek tay euh, titulaire Gana Gueye donc dans le onze de euh, départ de ce euh, match pendant ça également ki nga xam aussi moy donc ki di Pap Matar Diaye Tar Boy Thiès mën football le milieu de terrain sénégalais Mohamed Gaye hein. donc aujourd'hui il était présent par Matar Sarr boo gisee xam ne bi ni bëggul quoi <laughs> bu sañone day tok encore une fois jouer li nga xamné moy donc Coupe d'Afrique ba yegg finale mais malheureusement non le mënoon de mais Pape Matar qui est de retour dans son club war a pour dellu aussi. aujourd'hui encore une fois le Lion du Sénégal bokk ci joueur cadre yi nga xamné ne Postecoglou day compter ci ñom et il est l'avenir parce que signé na un contrat donc avec son euh, club bien entendu jëm ci aussi li nga xamné donc ci xam Marseille Marseille nag la fa xew de leneen lu waa ji ngeen gis waa ji moo fi ñëwoon benn instant day napp jàmbaar ba problème mu euh, kon kii partenariat jàmbaar ak ñi nga xam ne donc marché amoon fi ay lënt-lënt moom mi moo ko waral waa ji moom fu mu nekk day toj kaas rek waa marché yi nag ngeen jégal ma. mais c'est waa ji ay ñoom bi rek lay wax fi mu ne nii dañoo tere selon le yéenekaay bi di Le Fossoyant moo ko fësal nee nañ Pape dañ ko daag actuellement écarté ci groupe bi par rapport au fait que ne dañ ko mayon bu len faté longo da ko mayoon ba jeudi pour mu dadi jël ab décision jël ndogolam pap Gueye nak la ko Marseille bëgg a signaloo moom arrangé wu ko li nga xamné nak moy mooy donc avenir am peut-être jusqu'au ci Marseille lañ ko waxone ba mu ñëwee ak lé gisu ko moo tax nag peut-être jël na décision moom né décision bo xam dina ko respecter Marseille nak ñom nee nañ jamono ji Pape Gueye boo moytuwul dafa am club bo xam dafa d'accord ak moom motax dal muy jema def nii